Sénélec société nationale d'électricité bu Sénégal ak 3 énergie ñoo leen di may seen de presse jàngeen jëf campagne électorale bi jamono ji dekkalaat na coowal mbiram góor jigéen ci Sénégal réew mi quotidien mi ci addu wax ni kandidaa yi nga xamante ne ñooy xëccoo yëf yi jamono ji ku ci nekk am nga ci mbëbët ba noppi opposition bi di ci jam baaraamu tuuma ñi ngànk nguur gi jamono ji mu nekk campagne bi nga xamante ne daal mbiram góor jigéen soxal na leen lool jamono ji ba tax sàmm sa kàddu di fàttale Ousmane Sonko li nga xamante ne mooy ay diglewam sàmm sa kàddu yamu ca ndax ci las quotidien ñoo ngi cay fësal kàddu tête bi di Barthélémy Diaz miy digle ni bu fekkee am nañu majorité daal daañu fexe ba criminaliser li jëm ci borom ñaari tur ci Sénégal moom Barthélémy Diaz ci l'évidence mu mel ni ku bàyyul dara kii di Ousmane Sonko ci boppam moo tax yéenekaay bi jàpp ni kon xeex bi seen diggante jamono ji tàng na lool mu fekk amadu Ba mel ni kuy dalu waaye ci beneen wet ga Tahirou Sarr ak nationaliste yi ñoom mu mel ni ñu ngay gën a yokk seen mbooloo ki yokk mbooloom kay muy pastef ndax ci vox populi ñu ngi ñuy xamal ni ca Linguère kii di Maham Sall di njiital mouvement APD nee na Ousmane Sonko lay jàppale ci législative yi législative yi Amadou Ba na ci ay xalaat yi nga xamante ne mu ngi koy jibal ci waxtaan mu mu sekk ak suñu naataango yu le quotidien moom njiital jàmm ak njariñ nee na li mu bëgg mooy assemblée national bi nga xamante ne bërëbu waxtaanukaay lay doon ak i nas pexe ngir fexe ba taxaw jafe-jafe askanu Sénégal moo dina leer waaye tamit lu jëm ci bépp soxla bi nga xamante ne sénégalais dinañ ko am ak fu ñu mënti nekk Macky Sall mi jiite takk wàllu nekk ca Maroc coalition bi amee jafe-jafe ngir mobiliser fii ci biir réew mi li moo tax fu Walf Quotidien gis ni takk wàllu ci boppam campagne bu doy war lay dund jamono ji le témoin di ko feelu ne ko wax ji kay mooy Macky Sall ci boppam moom moo ragala dellu si ci biir réew mi li ko waral nag bokk na ci lajj gi mu am ci présidentielle bi wees yuuxoo yi nga xamante ne daf koy dund sax ca biti réew autorisation bi ak yoon yi tamit ndax dakkaluñu daal di ko ciy topp laata am moom Macky Sall yàq na lu mel ni xeme ki nga xamante ne moom mooy Ousmane Sonko ci biir les échos nee na lu mu gis mooy ay dérapage yi nga xamante ne njiital jëwriñ yi da koy def te loolee jëmalul réew mi fu baax njiitu réew ma woon yokk ci ni xeetu populisme ak autoritarisme moom ci dictature rek lay yóbbu réew mi kàddug Macky ba tey ci la tribune yéene kaay suñu naataango yi di ñu xamal ni moom borom APR e dafa disqualifié ci boppam Ousmane Sonko ba noppi proposé ab gouvernement ñoo nationale li moo tax enquête yéenekaay jàpp ni Macky daal dafa chargé régime u Diomaye ak Sonko ni ki démb ci ab bataaxal bi nga xamante ne bind na ko daal dinay ŋàññ li mu duppee populisme ak autoritarisme ndax gis na ni daal baaxul benn yoon ci démocratie bu Sénégal kàddu yi Macky yëkkati jamale ko ci askanub Sénégal mu mel ni l'observateur daf ci jàpp ni pexe bu yees la bu njiitu réew ma woon am ngir waxtaan ak askanam ci tomb académique waaye tamit ci ay digle yi nga xamante ne benn waru ci li wóorul kay mooy xamante ne askan wi dëkkee ca maatam Bakel ak li ko wër ndaxam ñu ko def Dakar Times mi dikkaat ci gox yooye nga xamante ne mbënd mi nangu na seen dëkkuwaay ñu toll ci juróom fukk juróom benn junni déplacé yenekaay bi di laaj ana nan la ñu war a fexe ba ñooñu daal di mën a voté ci législative yi nu ñuy fexe ba baykat yi gis seen bopp ci wàllu gerte gi mu mel ni état bu Sénégal am na ci taxawaay réew mi quotidien di ñu xamal ni jël nañu dogal ngir daal di dakkal bépp exportation jëm ci gerte gi moo tax yéenekaay groupe Rewmi Network bi di xamal ni Sénégal moom noppi na léegi yi ngir denc gerte wam wàllub gerte gi tamit ci Sud Quotidien mu ñuy xamal ni état ci boppam bëgg naa forcer yëf ba daal sukkaliyaat li nga xamante ne moom mooy filière bi ci boppam ci Sénégal li mu ci namu def bokk na ci yëkkati ci téeméer ak ñaar fukki milliards ngir campagne njaayum gi ñu dégmal gannaaw gerte gi wàllu pomme de terre tamit soxal état Le Soleil di ni état daf ci fas yéene yëkkati lu toll ci fukki milliards ngir fay yi nga la ñu yoral opérateurs yi yéen aan bi di ñu fàttali tamit taxawaay bi nga xamante ne am na ko taxaw ngir dàkkal li nga xamante ne moom mooy exportation gerte bi nga xamante ne fukki fan ak juróom ci weerub novembre bi la ñu koy tàmbalee ab ndaje la tàmbale ca diwaanub Abuja ci réewub Nigéria ay kàngam yu mag la CEDEAO daal di wolu ngir ab réunion technique bi nga xamante ne kon acteur yu e p yi ñoom ñoo ko war a sekk ñu war ci ànd tamit ak i diplomate bokk na ci ñi tewee ndaje boobu njiital mouvement des entreprises du Sénégal di Mbagnick Diop nga xamante ne démb ci talaata gi ba léegi moo ngi ca Nigéria ngir daal di ci fësal taxawaayu Sénégal taxawaayub nguur ga woon ci contrat partenariat public privé yi di PPP te ñu xaatim ko diggante 2016 ak 2021 mu mel ni libération mu ngi xamal ni dara teguwul ci yoon conseil des infrastructures bi nga xamante ne avion ci boppam am na ci solo lool dafa mel ni dañ ko ci du moyu ba ci sax wàllu budget bi ab bénéficiaire benn marché gré à gré bu tollu ci téeméer ak fukk ak ñetti milliards lañ ci daa di nemmeeku Rewmi Sport li mu nemmeeku mooy abi Beye daal boo moyul du ñëw ci équipe nationale bu Sénégal ngir tàggat ko li